asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki àdduna bi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaahi seydil bu jot salawaatullahi wa salaamu ginnaaw loolu di wax ni ne dellusiwaat nañu ak yéen naafali du jour tey di juróomeelu fan bi incha allahu taala naafali gi nag ñeenti ràkk lay doon ràkk bu nekk da nga ci jàng faatihatul kitaab benn yoon nga jàng suratu sarhi benn yoon jàng ixlaas ñetti yoon ku ko def mel na ni koo xam ne aj nga màkk junni yoon dem nga umar ji ci fi nga xam ne mooy may màkk junni yoon yàlla it dina la musal ci ñàkk waaye it dina dolli sa wërsëg bindal la ci arab bu nekk malaak ñaari malaaka yoo xam ne nii ñooy effacé say ñaawteef lépp loo xam ne def nga ko ci ay bàkkaar rek sunu borom subhanahu wa taala dina la jéggal waaye it bindal la ay yiw yoo bëree bëri yëkkati sa daraja yëkkati sa maqaama loolu yëpp su fekkee ne def nga naafali gii suñu borom subhanahu wa taala dina la ko defal te it boo faatoo bu ëllëgee ñu defal la tiyaaboo yi koo xam ne dafa sahit mooy ko dee ci jihaad waaye it yàlla dina la jégal sa mbooleem bàkkaar yi musal la ci li nga xam ne ni mooy sukkaraat bu metti mooy deegu metti waaye it di nga am ngërmande yàlla subhaanahu wa taala te it boo maa boo faatoo dañ lay ubbil bunti àjjana yi jox la ay xewal ba yomal xiyaam di jot naan la xéewalul ba baa nga dajeek sa borom subhaanahu wa taala kon nag bu ngeen ko defee ngeen bu leen ñu fàtte ñaani jërë ngeen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa